GIZ bi nga xam ni moo ñu accompagner ci projet kiosque multiservice yi ànd ci ak promoteur privé bi nga xam ni moo ngi tudd BNG digital di ñu jàppale si projet kiosque multiservice yi 130 kiosque lay nekk phase test la bi nga xam ni dinañu mun a jël 260 jeunes migrants de retour et potentiels migrants pour dugal leen ci département yi ci région yi ñu liggéey am fu ñu téye mbirum emploi nag dafa nekk loo xam ni lu am solo ci état ñu ci liggéey ak direction de l'emploi bi nga xam ni dañu signer convention ci xëyu ndaw ñi pour jàppale jeunesse sénégalaise particulièrement migrants de retour yi ak potentiel migrants yi kiosque yi nag dina permettre tey xale yooyu mun a am seen salaire mun a jàppale seen ay waajur liggéey tekki fii Sénégal projet bi tamit euh, jàppale na ay jeunes yi nga xam ni dañu am formation ci domaine sport am ñi nga xam ni tamit dañ leen jàppale former leen jox leen ay cage pour ñuy def yarum jën donc aquaculture au niveau national donc ñoo ngi remercier GIZ bi nga xam ni moo ñuy jàppale ci wàllum financement pour réussite projet bi tey nekk un projet de développement te tamit jàppale gox yi nga xam ni tey dañ ko soxla ci biir Sénégal